bonjour wala bonsoir ça dépend du l'heure ou du moment que tu regardes cette vidéo la vidéo ñu ngi leen di jaajëfal bu baax yéen ñiy safoo di baaxoo seen site bii di Sunugal 24 ànd ak la frère moom wala ko waa leen yéen ñii safoor yi ay am ne tarkalla masalla bu tegee ay micro am mhm. gaa yëpp fay mhm. a yëngal gësam waaw jox ma kii bi waaye ñu leen di bëgg bu baax defe naa ni sama talent dootuñu leen ko présenté mhm. doon na loo xam ne képp koo xam ne am nga talent ci li ngay def def. bàyyi ñu mhm. humoriste bi bàyyi ñu chanteur bi. Mhm. ba ci mool yeeg bàyyi ñu kenn di nga ñëw fii suñu plateau. ànd ci kër ndax la fois passée gis na ko ñuy dalal ñu dalal bu mag. macha allah tarkalla mhm. waaye tamit sama gars yi ah, leen ñu soxlaa da ñu da ngeen di contacter bi gars ñu invité leen. non non fii fi xaj. sama talent la ñu kat bi peinture kat bi. Ah. waaw wóolu sa bopp da nga ñëw amal talent ci li ngay def. détenu bi ah ensuite ah. détenu bi tamit ah. ki demoon xamante ne mooy sama talent émission bu yaa gën a xam ñii macha allah defe naa ni mhm. dégg nañ ko bu baax macha allah moom moo tey su ma la waxoon koo may indil comme invité kat nga may indil. waaw tey saa su ne li ma lay daal di wax rek nee naa la sama talent mooy émission bi nga xamante kon dina doon ko mhm. tamit waaye tamit ci site internet bi mhm. tey nag ñuy dalal ndaanaan boo xamante ni allah tarkal la kenn dootuñu muy xale bu am jom xale bu mën mi def macha allah du du

waaw mu yëngu mi ngi yëngu ngi gaañ mag a aj dëgëre bi yi. maa ngi nuyu ñëpp di ziar ñëpp du nuyu Fouguer yi du nuyu Momo Lokon du nuyu waa Sénégal 24 du nuyu sama yaay boobu bu baax a baax du nuyu sama papa du nuyu gars yëpp ñoom Bada ñoom gas bi ñoom Tafa ñoom Baye Serigne sama booy ñoo sama fierté <laughs> xam nga du nuyu Mara Niass du nuyu ñëpp du nuyu képp ki nga xamante ni yaa ngi suivre Fallou et video mm-hmm. du nuyu képp ki nga xamante ni yaa ngi juddoo Parcelles Assainies xam nga 1 ba 26 du nuyu waa Sénégal du nuyu àdduna jaajëf. waaw defe naa ni ñoo ko gisandoo nekk na doomu parcelle nekk na jeune boo xam ni dafa gëm lu muy def. Mhm. moo koy indi fii mu toll. Mhm. nekk na jeune boo xam ni tey jii boo duggee ci YouTube bi. Mhm. il est connu Instagram muy YouTube muy TikTok mi ngi koy rajaxe partout moom ne li may daal di wax rek mooy sama talent émission bi nga ne macha allah tarkal la moom la Sénégal bëgg. saa su ñu leen di indil ay ndaanaan ndaanaan ci biir ndaanaan ñuy seppet comme ni ñuy seppee jën ci biir ndox ah, di indi ndaanaan tey nag ñu dalal booy bu am jom muy booy boo xamante ne macha la mi ngi bay waaram sama papa Omaro yàq nga ma si tarkala macha allah <laughs> waaye tamit dama lay jaajëfal bu baax a baax a baax di la wax ne man fay naa sama nuyoo Fallou ah di la bàyyi ak Fouguere ñu doxal waaw euh, mhm. Fallou pour ñu dugg ci waxtaan bi tey bu ñu la laajoon ne Fallou kat kañ la commencé carrière am ne ne kat mhm. damay nekk benn humoriste damay def ay mhm. vidéo loolu lan ci dugal naa ne ay foo moo ci dugal comme ni ma ko waxee woon rek man dama bëggoon seetaan euh, ay théâtre Facebook laa daan dem di dugg di seetaan rek benn jour ma gis benn vidéo Facebook ñoom kii fàtte naa sax après après ci lañ demee kii nii Paris Dakar di photo dañu bëggoon photo xam nga rek affaire de galant xam nga xale jigéen yi yaa ma gën a xam léegi bi ñu demee photo ba pare photo ba pare amatuñ ni def ma gis vidéo ma ne booy kaa ñu replay vidéo ñu replay ko dugal affaire bi dop ñu essayé waat xam di essayé di essayé di essayé yàlla def xam amaguñ dara mais ñu ngi ñaan yàlla xam ne instant daal ñu ngi sant yàlla bu baax a baax waaw waaw parce que gis ni macha allah mën wax ni yow affaire yi suñu déggee ba dégg mooy ko ni ay foo nga ko jàppee woon waaw ay foo laa ko jàppee woon ay foo dama gis vidéo replay ko dugal youtube sam booy après xam man sam booy dañ maa bëgg xam nga rek aw ma noonu la ñëpp ma bëgg parce que Serigne Fall xam nga yëpp partagé hmm. partagé ku nekk bu partage ci whatsapp ñëpp di wax ku ne di wax ma jàpp rek xam nga ànd ànd ceeg sama booy ku ne ku ne jàpp xam xam ne incha allah day baax. day baax euh, defe naa ni ñoo ko déggandoo moomoo soo amoon loo koy loo mhm, saa su li may daal yi mu egsi fii mu xale bu am joma xale boo xamante ne mi ngi bay waaram ci biir youtube ba ah. waaw tarkalla masàllaa mais Fall damay daal di ñëw ndax fii sama talent amul amul complexe dañuy firi ñun ñëpp ay youtubeur lañ mhm. xumalo kon yaa ma gën a xam xam nga ko fuugéer yi waxi nopp xam nga tey plateau youtubeur la warul yomb quoi waaw a xam mooy euh, a dugg si vidéo nga ko dundee woon say bu waaw xale bu duggee ci dara xam nga mhm. fii ku nekk sa sa su sañoon sa doom mooy gën si doomi barke Serigne Touba te te parents yi xamuñ vidéo yi ni muy demee xam nga xamuñ xamuñ léegi yow yow muy jeune nag yow mi nga xam ne dugg nga ci milieu bi recherche nga xam nga suivre nga say grand frère ñoom xam nga liñ am mm-hmm. yow après yow yow yow yow yow au fond de toi di nga xam mais am na ñoo xam ne bi may dugg ñoom ils sont d'accord d'accord nañ xam nañ ni xam nañ li ma bëgg mais mm-hmm. boo doo commencé ñëppay bañ ku ne di wax barki yàlla mais yow yaay am sa gëm-gëm rek mm-hmm. xam tôt ou tard dina la fay wër na yàlla su ma déggoon ci wax yi maanaam tey da nga demoon parents yi commencé xam nga parce que jàppoon nañ comédie yi fi def la yu fi def taxoon ñoom ñu naan la non non demoon mais après fi mu toon nii mm-hmm. ba tey nii d' accord nañ wala nii mooy loolu parce que tey jii bu ñu demee ba seen doom kat muy génn ñu naan fàllu ngi ne fàllu lii gars di ñëw seet si non damay toog suñu kër sax ay taalibe parce que mm-hmm. si xam nga loolu tamit fierté la xam nga loolu rek loolu rek amul loo koy fayee. loolu rek mënoo ko fay. xam ni vraiment kenn dootu ko présenté comme li ma leen waxoon sànq. Mhm. Mhm. en plus tey gëm-gëmu moo ko indi fi mu toll moom boo amoon loo koy sànni. dëgg la saa su ne waa li may taaree wax rek affaire bi moom mhm. war nga xam yow yaay kan. parce que boo xoolee famille si li ngay dugg muy sa papa muy sa yaay jàpp nañu comédie loo xamante ne vraiment pour ñoom boo ci nekkee rek yaa ngi tardé sa life mhm. pour ñoom boo ci nekkee rek ku ñàkk a jom nga mhm. mais yow mi nga xamante ne yow yaay nit ki personnellement yow yaay wane loo xamante ni xam nga mhm. tarkala masàllaa boo ci nekkee rek dinañ xam ne yow mii ci li nga nekk nii fulaa fayda moo ci tax dugal te suñu borom loolu fulaa fayda dugal la ci jàppale saa su ne li ma waxoon benn interview rek nee naa la nit bu duggee ci benn affaire day am gëm-gëmam am bëgg-bëggam loolu moo la ci dugal macha allah di la wax ni xam nga comme ni nga ko bëggee yàlla nga dem ba xam nga sotti lépp sotti say ñëwaat say loxo say loxo macha allah. defe naa ni dégg nañ loolu bu baax mais tey jii Fall bu ñu waxoon à part euh, vidéo yi. Mm-hmm. lan ngay def da def métier wala da ngay jàng loo mun naa ni dama doon jàng de mais xam nga gëm-gëm nit danga am fooy tool yow doo fu <laughs> kenn daa moon jàng <laughs> fu fu kenn daa moon jàng mathématique euh. ndeysaan billaay dañ daan def travail de groupe ñépp man la ñuy bëgg a dendal billaahi man dama bëggoon affaire de ambiance suñ suñ classe su ma jàngi suuf sax école ba école ba laa la wax du neex parce <laughs> yàlla gëm-gëm buur na yàlla dañuy dem jàng man maa dem ba toog ci classe sax di mhm. xalaat naan lii laa war a gée lii lii xam nga affaire yi ma commencé ko mhm. waaw mu ëpp ma doole may jàngi tamit xam nga ku ne di wax prof sax naan kii vidéo yeeg xam nga ma xam ne nii nag mhm. ma war a jàng di daw toog naa ñaata semaine ja daw jàng dem tournage wóor na yàlla xam nga toog trois semaines ñemeetuma dugg école nag wóor na yàlla loolu laa def xama bi ma bàyyee jàng nag laay sama yaay léegi rek la mu def laa illah wóor na yàlla nga xam nga rek yàlla baax na yàlla ñu fi yàlla bàyyi bàyyi ñoog suñuy sago bàyyi leen fi yéen ñi ñëpp insha allah xam naa ni yéen ay wóor na Serigne Touba kenn ëpp leen talaa wóor na yàlla billaay waaw waaw li may daal di wax rek arme moo demee noonu quoi te man fi ma ko noyee mooy dafa wàcce boppam ah. moom yëgul dara muy dara quoi ku ñëw dafay wàcce tey dama ñëw di ko nuyu mu bëkkal mi ni ma man Baye Fall mm-hmm. te ñun loolu lañ bëgg si artiste uh-huh. gis nga fii nii dara du dara àdduna la ñun ñëpp ay passant lañ dañuy ñëw rek jàll dem mm-hmm. mais xam nga dafa am suñu xamante ne dañuy ñëw yëg benn succès boo xamante ni après da leen di mujjee lor parce que xam nga rek suñu borom moom moom moom mooy joxe te ku mu neex lay jox comme nag bu la joxee nag boo ci nekkee woyofal ko moo gën mu dem bay ñaawaat après ngay ngay ngay mbelaan mais fal damay ñëw ba léegi sa ak artistes ndax ku gis échange bi nii xam ni artistes yi def nga leen nii partout waaw ku gis échange bi xam ni artistes yi moom vraiment mooy leen dara dara dara dara dara mooy yu mag yi mais damay dama ñëw damay ñëw sa sa sa rapport ak ak ak artiste artiste Sénégal artiste euh, man moom mën naa ni gars yi ñu ñëpp laa. dëgg fa yàlla gars yi ñëpp laa aw maa kenn problème. mais artistes yi man maa ngi seen ginnaaw incha allah. non wuy ma fii amul ay lewtal. dama liggéey bi amul sentiment. amul gars boo nee seen ginnaaw chaque jour dañuy ne sa kanam te yow ñaan nga yàlla nekk seen kanam. ndax sa yaay daf lay yebal nga nekk ca kanam. kon bu fi nekk naan maa ci ginnaaw diw wax bu baax waaw yaa ak artistes ak kan ban artiste. bu ñu doon wax euh, yéen ñoom gars yi ñoom jaw ñoom jaw Kécco. waaw jaw jaw sama gaayan la. waaw ñu ngi déggante wax dëgg fa yàlla mi ngi may ma Mahfouz tamit waaw. gars yooyu yëpp waaw sama gaayan lañ. mais gis nañ sa vidéo anniversaire macha allah presque artistes yëpp souhaité na. waaw waaw waaw artistes yi ñu duudu moom ci boppam mu souhaité la. non xam naa dafa jàppoon mais maag duudu moom mën naa ne amaguñ rapport wax dëgg fa yàlla. amagu leen benn ni comme ça veut dire lan la dafa tëj boppam wala tëj boppam xam naa dafay jàpp rek. noo man moom mosuma koo wax dëgg fa maa ngi non non mosuma koo seet. mais Mahfouz moom dem naa ba seen kër xam nga Mahfouz soriw ma parcelle la dëgg ma dëgg parcelle. loolu la te jaw ko cop waaw dafa gusoon sama benn vidéo mu posté ko en story moom borom baax la waaw. moom baax la ñoom DJ Xassa gaa yëpp maa leen di ñoom ñu ngi siy jàpp ñoom ñëpp bi laay. gaa siy jàpp daal yaa ngi leen di bëggee daal waaye ku si jàpp. <laughs> gaa yëpp gaa maa ngi nuyu ñoom duuru sax maa leen di bëggee. wax tajaange fii suñu gaal 24 la fi di leer jëru ngay ni ak di yërëm talu. yow sa am na li ngay def ko war ba baal gaa yi ngay léeree non lëreew ma kenn amuma kenn problème. billaahi. mais la mais loolu looloo baax fu mu bàyyi la nga doxal. non Fallou macha allah tey hmm. doon na koo xam ne man naa wax ni. lu hmm. ne ci moom lay wax hmm. en fait. dëgg la ba tax na Fallou tey sama amoon ma lay laaj maanaam tey Fallou gis nañ ñoo xam ne sax dañuy am ay cinquante mille abonnés wala vingt mille abonnés. dañuy dóor saa yi. Fallou looy xaat pour def show parce que am na fans yoo xam ne maanaam ñi ngi gis vidéo yi nii mais yaa xam te nañ toog Fallou may leen xam nga. en live sur scène Fallou di yëngal scène bi. woo leen ci mel ni benn xam nga saal yi ñoom. Sorano yooyu noonu. waaw ay ay yow man grand théâtre laa jël léegi léegi man duma laa sax Sorano. tepp tepp moo gën ñu rek nànk nànk laay def jarul mooy yaa xam ci. waaw ñu ngi ciy liggéey nag ñu ngi ciy liggéey bu baax a baax a baax a baax a baax a baax foowuñ de wóor na yàlla ñu ngi ciy liggéey saa bu ñu xëyee dañuy dem mm-hmm. ñun bu ñu ñun saa bu ñu xëyee dañuy dem liggéey mm-hmm. wóor na yàlla peut-être na am na ñoo xam ne jàppawuñ ne li ñuy def nii du liggéey mais yàlla baax na ñu ngi ciy ñu ngi ciy ñu ngi ciy gañe ñu ngi ciy sant yàlla bu baax a baax moom même bu fekkee benn juróomi dërëm sax ñu ngi ko ciy gañe te gëm nañu lu mu bon bon bon bon di leen dawal oto yu mool am gàll yu mool mm-hmm. teg ci jéeg yu mool incha allah. <laughs> kii jii noonu lañ ko toppee. voilà jéeg ah? jigéen ji. non ñaata gel nga yi li ma dem gisee xol laa lay wax dégg naa instant bi ma ngi xale yi jigéen yi de. Fall man moom aw ma gel. ñaata gel non non loolu fi nga koy yaa ngi lay seetaan de koo fi lëre tamit rek dina la seetaan. aw gel sa gel nan la tudd. waxal gars yi aw ma gel. non yow aw xale laa xaw yooyu. waaw yow laa xam. Eh, ndeysaan waaye léeg-léeg ñàkk benn euh. xale bu jigéen xaw a daw doxantu nii sa gel bi nii mooy loolu noonu asu waa xaw ma woon sax balaa ma tëj kaas yi <laughs> damay bañ a tëj mm-hmm. la laaj sa premier mm-hmm. salaire YouTube comme que mm-hmm. tey ji YouTube a ngi lay teral tey premier salaire YouTube nu demee parce que fi doon YouTube a ngi lay moom yaa ngi lay ah, sa xaalis <laughs> Fallou bu ñu nëw sa Fallou Fallou bu ñu fontoo non foo xam nga moo xam nga léegi xam nga Fallou Fallou xam nga kan a nëbb yi mais ñun ay youtubeur lañ ñun ku ñu xam foo xam naa loolu sama premier salaire youtube youtube cinq mille la mu njëkk a fay bilaay cinq mille la mu njëkk a ma wax mhm. man sama compte youtube cinq laa fa jël man am naa ko youtube aussi joom nga ko retiré xam naa <laughs> mais fi mu toll nii macha allah yaa ngi ciy gis sa bopp. waaw waaw échange kay ñoo ngi sant yàlla bu baax a baax bu dee ak tuut sax ñu ji santi sant yàlla ñun ñun ñun ñun mën naan man affaire bi mën naan xaalis dugal ma ci passion la bëgg-bëgg. Ah, te bëgg-bëgg boo gis boo ci yàggee dina am xaalis. war na yàlla. defe naa ni loolu am na solo trop moom lan nga koy jox sa kàddu. waaw saa su ne rek li may wax fàllu nii lii du continuer sa affaire affaire affaire yi bu la caméra yi nii te bu ñëwee taxaw ngay jéem a sëñ dañuy lëre kii xam nga de dañuy jéem a lëre lu ñu def ci suuf. <laughs> mais Fall damay daal di ñëw ba léegi ah Fall waa ah. euh, fii nag da ngay wax waa Sénégal quoi c'est projet ci lan nga jëm ak lan ngay wàcc loo xamante ne yaa ngi koy wàcc. instant yi moom ñu ngi wàcc sama clip son wi. dafa naa di déglu ngeen ko wala. audio audio lañ defoon. essayé vidéo YouTube Instagram TikTok. man lañ yittewoo waaw ñi ngi ñi dañ ko dañoo dugal audio bi te instant ñi ngi ci ñi ngi ci clip bi instant xam nga xam nga dañoo bëgg def clip bu top def promotion bi mu xam nga mu kii mu def bëm ñoo ngi ciy liggéey te incha allah instant ñoo ngi ak projet yu bëri instant yi nag ñu ngi eh, ñi ci benn série boo xam ne mi ngi ñëw xam nga rek gars bu ñu xamee foo jëm doo yee bàyyi ma làqatu rek xam dañuy xëy rek di gis mooy daal am nga expérience ay série Fallou série yombul de te daa laaj hmm? daa laaj de gis nañ koor gi defoon nga lu garaaw defoon nga lu dóob. Mm-hmm. fàqmaan yi ñu mooy loolu. Mm-hmm. mais série. série mi ngi ñëw. ne mm-hmm. bu fekkee ak téléphone lañ koy tuddee sax mi ngi ñëw. laa yow man dinaa série. Euh. séeri boo xam ne scénario man lan dinañ koy bëgg incha allah mi ngi ñëw billaay mi ngi ñëw. yàlla nañ loolu tey ñu ngi àndoon ak ki nga xam ne moom la ñaan fàllu ci vidéo doon na koo xam ne vraiment. ku baax la mhm. ku modeste la doon na koo xam ne tamit ku am yar la mhm. parce que yar moom lu mu la xañu du ko may xam nga ba tax na moom mooy tey loo ko euh, xam ne incha lépp liggéey moo ko may may mhm. di la wax ne nga gën a góorgóorlu a jàpp li ñu siy séntu mu ngi ci biiraa ah. li ngay séntu ci aar bi mi ngi ci biir di wax ne nga gën a jàpp gën a gën a gën a gën a góorgóorlu quoi mhm. yàlla baax na waaw defe naan dégg nañ loolu mais tey boo ñu doon may dara ah, avant ñuy tàggatoo lan nga ñuy may ndax sama talent la <laughs> damaa musoon fekkee loolu dama ko jooylu de damaa métti billaahi benn dof mhm. ñaari dof la sax mhm. ñaari dof ñoo doon xeex ci côté piscine bi benn dof bi buux ko comprendre buux ko mu wadd ba pare mu tëb sauvé waat ko gaa yëpp apprécier ko <laughs> non non gaa yëpp apprécier ko ñu xëy suba police woo ko ne ko kontaan nañ ci li nga def mais dañoo dem ci néegam fekk mu dee fekk ñu tàndur ko léegi après après mu ne waa waaw man la dama ko doon weer pour mu waaw <laughs> kooku na ko <laughs> yow kooku dama dama métti. <laughs> biir weeraat yàlla daal di koy yàlla tàndur na koo xam ni tey jii. Mm, macha la doon na mm. xam ni macha allah. taxawal ma mu nuyu waa TikTok. laay man mën naa ni lépp TikTok la jógee dama koy wax di ko waxaat. macha allah sama morom waaw sama morom youtubeur yëpp képp ki nga xamante ni yaa ngi ci affaire yi. Mm. xam nga bëgg cee am dara. man maa ngi lay conseiller même boo amul TikTok wuti ko nga dem waaw man mën naa ni TikTok la barke Serigne Fallou TikTok la non amul. amul xaalis mais. mais yow li nga fay am yow mënoo koo xam. wut man daa ma nekkee YouTube kese mosuma romb fenn enquête dinaa romb fenn ñu ne ma YouTube laa la xàmmee mais TikTok li ma am TikTok. non waaw waaw yow maa xale TikTok xale lii lii lii parce que man parce que man mën naa ni TikTok man damaa naturel man damay ñëw wax lu ma neex dugal. affaire faa nga osé tamit. di wax lu la neex waaw di créer. donte tamit imité neex na mais tamit faa ngay tamit créer man mën naa ne looloo ma TikTok mooy lépp. mooy lépp yow. non dégg <laughs> amaguñ dara nag mais ñu ngi ñaan yàlla instant ñun génneeguñ dara. Hmm. génneeguñ dara loo xam ne ñun. yëg nañ ci suñu bopp. incha allah mi ngi ñëw ñu ngi liggéey de. Hmm. war na yàlla ñu ngi liggéey yàlla macha allah defe naa ni kàddu yooyu am na solo tey ñi ngi àndoon ak ki nga xam ne mooy Fallou et ses mm. ba tey mën nga dugg sur YouTube Facebook Instagram ak mm. euh, TikTok bi soo tapee Fallou et ses di nga ko gis euh, tey bu ñu doon wax sa kàddu gu mujj lan ngay joxe. waaw maa ngi nuyu ñëpp di leen gërëm di la gërëm fu di la gërëm. waaw di wax gars yi ñu xaar ma bu baax baax baax ñu ngi may séentu leen ma fu sori gis naa seen taxawaay gis naa seen taxawaay yéen waa YouTube bi xam nga di wax ni gars yi dem abone sama Instagram sama TikTok. Mhm. sama YouTube xam nga di wax ni vidéo yu bëri mi ngi ñëw ñëw ñëw ak série yu bëri mhm. du ñuyu ñoom Bada waaw sama gars yi ñoom gas bi ñoom Baye Serigne ñoom Tafa ñoom Moussa Fédé vidéo xam nga gars yi yëpp maa ngi leen di bëggee ba Serigne Touba sama gars yi lañ man mën naa ni saa su ma xëyee ñoom laay gis. même bu fekkee ni sax du ma gis ay grand man ñoom laay gis. wóor na yàlla du nuyu sama yaay sama papa suñu waa kër ñëpp. ñoom ñëpp ñu may jàppale tey wax ni yàlla baax waaw lii laa yàlla baax na kontaan naa ci ah. waaw mu yokk ñaan xam xam di ko wax ne sa doom xam ne ni mu bëgg di la wax ne saa boo jullee dee ñaan defe ni ngi noonu defe naa ni kàddu yi am na solo te en plus mhm. c'est triste macha allah parce que tey jii dem nga ba sa doom macha allah doon benn level bi àdduna bëgg ko defe naa hmm. ni loolu yombul vraiment duñ def lu dul xam nga yokk yaa ñaan yi allah moomoo hmm. lan ngay joxe sa kàddu gu waaw saa su ne li may wax allah di ko kontaanee bu baax a ah. dalal bi nga dal fi nga xamante mooy ba ci waa non limite di leen jaajëfal bu baax a baax di souhaité happy birthday ki nga xamante ne mooy Moussa Camara borom Mboro ndeysaan di jaajëfal borom clando yeeg borom sama gars yi police yi di jaajëfal ñëpp ah di di sargal li nga mooy Tiwaan ndax man nee naa la from Tiwaan la saa su ne mënu ma tëj te du ma sargal mooy kuli yëpp ndax mooy eh, taxawal taxawal sama 14 ans yi moo wax moom laa am ñu bëgg maa wedd moom laa am 14 ans laa am te sama anniversaire gis naa ni ngi taxawee cadeau yi yow man parcelle billaay 1 ba cinq cent mille messages laa am billaay cinq cent mille messages baax naa yaru naa bëgg naa jigéen ñi yeddi waaw ah, yàlla baax ah, amoo 14 ans ban année nga man 14 ans laa am non ban a la amee 14 ans la. waaw ans la am gëm leen ko rek yàlla baax na. dee na kon moom moo dawal moom. Mm, mi ngi noonu yaa ma gën a xam nan lay def man fi may tëjee rek rek. Mm-hmm. Ah, di sargal waa Tivaouane ah man fa laay tëjee ndax man mënu ma tëj te du ma sargal waa Tivaouane yaa ma gën a xam fier d'être Tivaouane ah mm-hmm. di la jaajëf lu baax doomu yaay. waaw mi ngi bu mag ki nga xam ne mooy xale 14 ans bi. ci mm-hmm. xam nga moo wax wax la wax la def moom la ñuy gëm di ko jaajëfal tamit bu baax di la jégalu ci dérangement bi ak déplacement bi parce que vraiment borom baax nga di jaajëfal sama naataangal beeg mu naan euh, Momo la ko hmm. di bëggee ki nga xam ne moom lañ naan gas Gasmin ak sa copain Bada ñi nga xam ne ñoo newoon ci ànd ak yow ci affaire yi jaajëfal Cheikh Daaro borom chaîne yi hmm. gis ngeen lii jamaa la bu kenn foog naan ay përëb wala dara man jamaa laay tax xam naa man xam naa man maa takk lii përëm la xam naa man maa takk përëm man booy sangoog moom di furi waaw du nuyu tii sama daal sama partenaire sama daal am di couture waaw hmm. tuuti fashion saalu Thiouz sama gars yëpp maa leen di bëggee. waaw di wax ni ñoom tamit ñu ngi ci jàpp bu baax a baax. damay bëgg a sol dara sax contacter leen ñu ne ma ñëwal. waay gars yi dañoo baax yow. macha allah kon gars yi nañ ci gën a jàpp di gën a indi daal yi muy ñëw di gërëm ki nga xam ne mooy Cheikh Darou borom cinq continents yi ku bëgg ci yu baax yooyu or jama ak lu mu mënti doon boo ko bëggee mën nga ko woo ci 77 euh, 422 49 07 di leen jaajëfal ba beneen yoon incha allah.